waa Mbourkat asalaamaaleykum waa Mbourkat ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax woote jafe bi ñu wootee ñëpp ñëw nañ bu ñu xoolee jataay bi ñu xam ne ni Mbourkat extension ñëpp wuyu si nañ leen ah man sama wax du bëri parce que ñu fi jaar ñëpp wax nañ lépp dafa am liggéey bu ñu doon def ah liggéey bu jégg dayoo bu métti. xam ngeen dëkk bi nu mu demee mu tolloon ci période campagne toll ci période parrainage ñun président de la république soo excellence Macky Sall am liggéey bu mu defal fii ndax jamonoy Ablaye Wade fi la ñu fekk mais fekk ñu nekk ci bureau bi sunu paa yi ñoom pa Malang Badji pa Badji pa Sall pa Ciss ak sunu président Diallo. ñu doon liggéey ñu gis ni fu nekk dem nañ fa amul benn résultat le président Macky Sall ñëw fii ñu def benn gest bu ndaw bi mu ñëwee cinquante deux communes rurales moo fi nekkoon KMS 3 bi la doon mais bi mu ñëwee man munuma boo leen gisee ma tànte am parce que damaa xam ne ni Mbourkat extension man jigéen ñi may xool ak paa yii ma ne Touré préparé leen damay dee fii waaye président sama leetre bii bu ko jot Mbourkane extension président du jàll te man fi dee. du sama ñàmbarte nag du sama ñàmbarte sama xol sama yéene moo doon yóbbu lu doon ay gendarme ay garde corps nga franchir jàll xam nga ni mayu yàlla du man. du man du góor jàmbaarewu ma noonu mais yéen ñi topp sama ginnaaw am yaakaar ci man Jules Diémé Jules Diémé laa ne dinaa dem du ma tas yaakaar yàlla def ma yuuxu président xool leen rëng-rëng yi bruit oto yi bi mais sama voix da koo dégg ne ma booy kaay ma ñëw jox ko bi bi mu ñëwee bi mu santee gouverneur préfet mbuurkaat extension la ci teg kon le président de la république Macky Sall amuñu dara dara luñ koy def moo tax bi ñu toogee réunion ñu ne ñun la président war nañ ko delloo njukkal mu déclassé ñàkk a ndax fii ñi fi yàgg di tabax mën nañ seede man preuve man preuve laa ndax tabax naa ba huit ans ñu daaneel ko eaux et daaneel ko mais bi président waxee ba léegi. laasee def tekk kenn laaltu kenn kenn defaru kenn ñu bëri ci lañ dëkkee kon loolu jar nañu sant président ñu def conférence de presse du ñu du mañ ndam parce que ay wax kese la mais nañ ko defal benn barkeelu benn signe signe boobu mooy nañ collecté ay parrainage loolu bi jëlee option boobu matul trois mois. ak feewu parrainage yi yàlla def ñu def waxtaan ba juboo loolu waxtaan ba juboo loolu ñu ne dinañ ko jox le président de la république Macky Sall yàlla def ñu récolté ay parrainage parrainage yaa ngi nii bi ñu récolté parrainage ñu ne option deux mooy politiciens yi dañuy naxaate ñaata at ñaata weer ñaata jour ñun ñu ñuy topp xam ngeen Thiès bëri na ay leader politique mais kuñ ci dem sa option mooy parrainage te doo ñu jox dara bu ñu demee nga woo président bi suuf ne ko mën nañoo liggéey defal lii nañ def lii président bi ne leen déedéet mburkaat extension xaalis bi day jeex man dama bëgg a dëkk ak sama njaboot bu ma génnee ci mbedd bi bu ma génnee ci mbedd bi sama doom ku mu bëgg doomam mu ne ko ah yow sa papa jàmbaar la ndax léeg lii léeg lii te da man jubuma dama ciy jaamu suñu borom loolu moo waral ñu ne parrainage yi duñ ko jox kenn kuddut koo xam ne ni mi ngi ñuy jàppale ci mbir bi te bëggu ci dara bëggu lu dul affaire bi feeñu biñ biñ demee ci leader politicien yi nekk Thiès yépp dem ba Dakar ñi ñëw ci réunion yi xam nañ ko parce que ñu leen di informer biñ defee choisir biñ choisiree leader yi Charles Cissé directeur de la solde moom lañ mujjee xam ci leader yi moom lañ mujjee xam ci leader yi mais ba ñu yeggee daf ñu tegal option dem nañ ñaari yoon Dakar mu yóbbu ñu ci kilifa yi macha allah ñu dalal ñu ne ñu yéen waa Mbourkat extension président dégg na seen jàngoro dina déclassé ñu demaat ñaari yoon man mii demoon naa mu ne ñu le président de la république déclassé nañ àll bi forêt classée bi déclassé nañ ko ma ne ko président mun ma waaw ma ne ko dafa am luy ñëw ci soow bi li ñuul sol bi mooy gis nga ñu ña mobilisé woon day ak yow ci KMS 3 bi amul kenn ku ci am lettre d'attribution ña fa nekk ñëpp borom tool yee leen jox ay acte de la ñu yor tey boo déclassé àll bi te bàyyiwoo xel ni population bi nga gisoon ñu wax seen jàngoro ñu bind la lettre wax seen jàngoro yépp bu dee ñoom ñoo tax nga déclassé ko na nga prêter attention si lettre d'attribution yi parce que lettre d'attribution yi mënut baax ci biir forêt classée bi. mu ne ñu loolu jarut jarut ngeen ko ngeen si insister jarut ngeen ciy wax. Mbour Kane extension. tàccu ba mu nekkee ba mu nekkee maire Thiès Ouest gars yi commencé eaux et ñëw fii di daaneel. moom ci boppam. moo moo dagg liggéeyam lépp yitteem yëpp ñëw ne nañ arrêté liggéey bi parce que ñii ay population am lañ. Hmm. ñii ay population lañ. Hmm. nañ arrêté ñu lijjanti ko beneen façon hmm. bu dul ay daaneel. ndax tey bu ñu daaneelee seen kër yooyu ay yeneen Sénégal lañ koy jox. lool du fi am. moom mi moo ko def madame la maire mii moo ko def wute naag maire yoo xam ne ni dañuy ñëw suñu kër yi di daaneel di bëgg promotion duñ ko am waaw mais Mbourkat extension ñun lañu fi fekk dañuy dem ba jeex dem ba jeex suñuy kër rek wala ñu def ay moor wax ji jeex man de noonu laa ko gisee parce que kër kër mooy lépp ñay luye ñu leen di kër xam nañ kër ni mu méttee kon ñun jaral na ñu xeex ba fajar ma continuer li ma doon wax ah bi ñu defee choix boobu bi ñu demee foofu kilifa yi wax ñu loolu léegi na seen xel daal président bi muy wax yéen na wax te yéen yéenay priorité yéen yéenay priorité de classement bi ah man alhamdulilah bi ma ñëwee rendre naa compte looloo tax ak yeneen ak yeneen yu muy dox moo tax. merci moo tax bi ñuy def publicité bi wax ñu turu kenn ne dañ koy jox parrainage yi parce que xam ngeen ni affaire politique dafa fiir te Thiès dafa xaw a xat gars yi dañoo doy waar ci côté boobu looloo tax te am na yeneen yu mu dox ci déclassement bi bëgguñu wax ko ci mbooloo bi wax ko ci télé bi gars di ko kar bëgguñu wax ko ci mbooloo bi wax ko fii gars yi di ko kar looloo tax dañ koy def ci suuf mu bett gars yi ndax Mbourkat extension euh, président ñii tuuti kese la ñii xaaj bi ñëw ñii tuuti kese lañ man de man de Jules li may wax mooy président de la république Macky sal bës bu ñu déclassé sunu àll bi ngir yàlla ak bi politique ñu ngir yàlla ak bi nañ ko salee suñu carte ñu gore ndax am na point bu ñu defal am na point bu ñu defal parce que képp kuy wax président président mais yow sa avantage ngay xool te politique intérêt la ñun suñu intérêt mooy mu jox ñu suñuy kër mu jox ñu suñu kër nañ ko jox suñuy carte jeex na campagne yi campagne yu nag campagne damay wax waxu góor laay wax que ni le président de la république tey bu ñu déclassé suñu àll bii avant ñuy def campagne yi ñun waa Mbourkat extension plus de deux mille ko sànnee suñu carte dina am Thiès plus deux mille cent bañ a guddal di leen xamal ni président Charles Ciss mii man ne gaaw maa gëm nit ndax politicien bu nekk dem naa ci moom woo nga ma individuellement mais président Charles Ciss bii joxuñu xaalis hmm. témoin yaa ngi ñëpp ñu fi nekk ci góor bi mais dafa am ay ay gestes yu concret yi ñuy wax di lu ci yoon bi loolu tax ñu ne suñu parrainage yii suñu parrainage yii président de république lañ koy jox mais dañ koy jaarale ci loxo Charles Ciss nii mu jottali ñu ko président dañoo bëgg président xam ne waa Mbourkat extension ña mu waxoon ni boole naa leen gouverneur gouverneur jox seen géeju kër yi ñoo barkeelu ci parrainage yi suñu barkeelu ni nii ci mbiru président mooy suñu parrainage yii la ñu barkeelu mille mille mille signature la ñu barkeelu ci parrainage le président de la république son excellence Macky Sall mi ngi nii lii nag barkeelu kese la te barkeelu bi bés du chantage na dañuy wax li ñuy xalaat bés bu ñu joxee suñuy këyit te élection yi ñëw dinañ ko dinañ ko yokkal deux mille plus de deux mille cinq moo nekk nii voilà. kon ma bañ a guddee parce que fii amuñu courant groupe lañu groupe lañu am nii pour doxal affaire bi vraiment di. te jënk nañu suñuy parrainage nga jottali ñu ko président boo demee nga ne président de la République maître kii euh, nu mu son excellence Macky Sall nga ne ko waa Mbour 4 extension mi nga waxoon ni jox naa leen seen terrain yi. ñoo barkeeloo ci sa parrainage yii mille signature te mille yooyu li ñuy ñaan mooy bëgg nañ toog ak Macky Sall. bëgg nañ toog ak Macky Sall gën koo leeral du chantage nag du dara am naa droit wax sama xalaat oo naka waa Mbour 4 extension ñoo ma yebal du man alhamdulilah. jërëjëf merci. maaleykum mbokki extension. maa yi nuyu ñëpp kilifa yi fi toog mag ñi fi toog madame le maire fi toog wax kàddu yi rafet président collectif bi Souleymane Diémé madame président yi Ndeye juuf imam Touré ak ñëpp ñi nga xam ne tey ñoo fi daan liggéey ba jébal ko collectif bi wax ngeen ko muy président Diallo imam Ciss euh, suñu papa si Badji ak ñëpp ñi nga xam ne tey teew nañ fii di nuyu aussi responsable yi nga xam ne ñoo ñu permettre ñu mun a taxaw fi tey à commencer par son excellence le président de la république Macky Sall yaakaar naa kooku moo moo jar a gërëm kooku moo jar a sant ndaxte kàddoom rek yombul ku taxaw ci diggu gor yi ne la waa Mbour 4 seeni jàngoro xam naa ko jox na instruction ñi nga xam ne ñoo ci war a liggéey ñu am nañu jëflante ak yéen ba ngeen jot ci kooku amelu tu leen dara ndax loolu dafa dafa jafe ku xam état di ci gërëm Ismaïla Soumaré mi di sama mag dëkk fayu nekk responsable aussi ku xam état xam na ne loolu yombul ñi ma àndal nii la présidente Matibé Senghor xam na li may wax di présidente réseau des enseignants de l'APR responsable mouvement ànd Mame Biram Diouf mi aussi di responsable mouvement solidarité citoyenne ci Thiès Est xam nañ li may wax bu baax a baax joxe sa kàddu yombul moo taxoon bi ma collectif bi set see ma ne la dama bëgg ngeen daal li ngeen liggéey rafet na seen askan ngeen ko liggéeyal mais man parrainage taxuma jóg li ma tax a jóg bu ma dul woon sa responsable politique dama leen war a taxawu parce que je suis Thiessois mmh. fii laa juddoo yeroo fi moo tax ma ne ko parrainage président de la République nga ko defal mu jaarale ko sama loxo mais saxlawu ma ko téye sama bureau ndaxte li may liggéeyal état doy na ma ci firnde man noonu lay jëfe di leen wax ne aussi dossier bi wax naa leen ko dama bëgg ñu woolu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci dossier bi le gouverneur Amadou Sy le préfet Fodé ñooñu ay gor lañu ñoo xam ne bu ñu jëflanteeg yéen di ngeen xam ne ñii gor lañu. dama bëgg ngeen woolu leen dolli kóolute boog ndax xam naa ne woolu ngeen leen dossier bi mu ngi jaar fi mu war a jaar ministre de l'environnement ñu ngi koy gërëm ak équipe am ndaxte fi may wax ak yow ni tey conformément à l'instruction du président de la république ak ni ngeen ko waxee. mais zone bi déclassé nañ ko loolu moo am loolu jarul ñu ci wax wax ju bëri ku ci bëgg am firnde na xaar tuuti ndaxte képp xam na ne ci wàllu foncier dafa nekk lu complexe ci Sénégal dafay jël temps ndaxte enjeu yu bëri mais da am avocat boo xam ne dafa nekk avocat du peuple et c'est le président de la République. ku yërëm askan bi la moo tax mu ne leen dinaa jël dossier bi en te mu ngi koy saytu di fàttali imam Touré di ko ne président du fàtte dossier dossier yi bari na lool mais du ko fàtte moo tax mu jébbal ko ñu ko war a jébbal dama bëgg nag waa mbuurkat confiance bi ngeen am ci président de la république ngeen yokk ko dolli ko lii bu mu yem ci parrainage dama bu mu nekk ay voix ci élection présidentielle vingt 24 février mu nekk ay voix yoo xam ne dafay nekk voix yi contribuer ci victoire du président de la république ndax ne ku la defal lu baax da nga koy delloo njukkal taxawu leen forcé wu leen defu leen dara nee na nag dinaa leen defal lu baax ndax gis naa ne sonn ngeen te lii bëgg naa ci taxaw kooku ameetu leen dara di leen ne xamal ñun doomu Thiès lañu liñ leen defal nii di ci taxaw defu luñ ko leen rek cheminots yi ñu ngi leen di taxaw les policiers rajo yu Thiès ñu ngi leen di taxaw te laajuñu ci dërëm taxuñoo jóg yàlla mu ñuy suturaal suñu métier dañ ko am balaa ñuy def politique. politique bu ñu ko defee pour dimbali askan bi la du pour leneen donc Souleymane Jules Diémé dama koy gërëm ndax te amul semaine bu ma dul woo ñuy waxtaan ma koy conseillé ne ko defal attention ndaxte dossier bi nga yor dafa nekk dossier bu pare peut-être dina bari ñu ko bëgg mais kenn xamul ndax am na ñëpp am nañ ci yéen bu baax. ah man de sama bopp laa xam xam naa ne sama yéene mooy bu may traverse fii di dem Popenguine bale nga xam ne bokk na sama dëkk ma gis ne nit ñi dëkk nañu dëkk bu rafet loolu mooy suñu objectif di leen xamal ne fii aussi dafa nekk foo xam ne tey dafa valoriser wu te ki ko valoriser c'est le président la République. gis ngeen ne Ila Touba bi mu ngi seen ginnaaw. aéroport bi c'est à quelques dix kilomètres d'ici. kon tey dëkkuwaay boobu ku sañoon dëkk fi donc xam leen ne li ngeen yor lu am valeur la ngeen sàmm ko bu ñu leen joxee seen kayit ngeen sàmm ko taxaw ci taxaw rafet ñi nga xam ne ñoo war a jot ci kayit yi te loolu dinañ ko def noonu nag du ma policier boo ñoo ne ah ñëpp di ngeen loolu duñ ko def man du ma diggee loo xam ne bu suba damay am sax kersa tudd waa mburkaat dañ ciy jéem di ci liggéey ndax am nañ ci yaakaar kii leen ko dig di président la république ku amul ci moom yaakaar yaakaar naa dootu amul ci moom yaakaar parce que li mu fi liggéey boobu ba léegi ñu ngi koy gis bourse de sécurité familiale yi suñu bàyyi mu ngi koy wax six tey da nga daan gis ku togg ay ati at musul jëflante ak état ñi woo ko ne ko kaay fayeku loolu ku am yërmaande ci askan moo koy def da nga daan gis ku am jafe-jafe pour faju mu ne ñoon dina leen yombalal seeni seeni seeni seeni faju seen wér-gu-yaram defar une initiative qu'on appelle couverture maladie universelle ak bourse d'égalité de chances ñi nga xam ne yàlla mayu leen eh, seen cër mën leen permettre ñu liggéey initiative bu ñu toogee di ko wax fii sax yaakaar naa eh, duñ fi jógee li leen gën a intéressé mooy régularisation bi dama bëgg ñu jàpp benn message benn message le président de la république ak ñi mu war a liggéeyal ministre mi l' administration ñu ngi liggéey ci dossier bi ndax ñaan la yàlla mu sotti ci ay diiru gàtt dama bëgg ngeen ñaan dolli ko kattan ndax dossier bu mën a sotti ñi nga xam ne nag ñoom ngeen jiite dama leen di gërëm ñu gëm yàlla lañu wax yu leer rek la ñuy wax wax yoo xam ne. teguwul feneen tudd ci diine ci yoon muy Ndeye Diouf mi di Souleymane Diémé ak di Imam Touré ñu jàmbaar lañu te li ñu sekk Souleymane wax na ko du xaalis xaalis taxuñoo jóg ci politique li ñu sekk mooy sekku gor sekku dimbale doomu aadama ak moromam balaa ñuy dugg ci politique donc dama bëgg waa Mbour 4 dolli leen confiance ñii ñu jara jox confiance lañu te yaakaar naa duñ leen joxoñ foo xam ne bu ngeen fa defee euh, seen baram day foxoñ fi ñu leen di joxoñ direction bu baax la fi ñu leen di joxoñ mooy soutenir le président de la république Macky Sall. guddi na te xam naa ne ah suñu jigéenu jàmbaar yi dañu bàyyi seen kër bàyyi seen lépp ñëw di assister cérémonie bu mel nii luñ leen téye lu yàgg ndaxte seen taxawaay seen toogaay rafet na topp. boobu ba léegi bi ñu commencé liggéey ak président Mbaye Diouf ci wàllu formation gis naa ni ñu farloo ci formation donc dama bëgg dalal seen xel ne leen ginnaaw formation bi dina am yeneen yu ñu fi àndi yoo xam ne nag jigéen ñi lañ ko jagleel parce que nañ ko wax jigéen ñi yor kër yi loolu dinañ ci waxtaan ak le président Souleymane Diémé ak président Ndeye Diouf ñu xool nan lañ koy organiser ci semaine yi di ñëw jagleel leen yoo xam ne dina leen mën a euh, yokk dara ci seen wàllu tundu man noonu lay liggéeyee te yaakaar naa ñi ma wër yoo xam nañ ni ñuy liggéeyee donc du ma téye nit ñi lu bari damay gërëm presse bi ndaxte seen accompagnement rafet na trop. Euh, lii wax dëgg yàlla dafay wane ne seen euh, cause bi nga xam ne moom la collectif bi taxawal cause bu leen ñor la. dama bëgg nag jotal leen message bi ñu jottali message bi ñëpp ñi nga xam ne dañ ci war a jot ñu traité information bi noo xam ne ku ko lire di nga xam ne collectif Mbourkat wax dëgg yàlla ñu ngi taxaw pour régulariser la situation des habitants de Mbourkat extension. waaw je vous remercie tout en commençant par remercier les membres du collectif les anciens mais aussi l'actuel collectif. présidé par monsieur Souleymane Diallo Souleymane Diémé euh, Imam Touré Ndeye Diouf remercier madame le maire d'avoir bien voulu assister à cette manifestation remercier aussi euh, ceux qui m'accompagnent dans ce combat à commencer par la présidente Mati Bey Senghor madame Sow présidente du mouvement And nga xam ne Thiès yëpp xam nañ ko Remercier aussi Mambiram Diouf, un responsable éminent aussi du mouvement à Thiès-Est, à Silmagne. Remercier M. Ismaël Soumaré, euh, qui fait aussi beaucoup de bien à la population thiessoise à partir de sa position. Remercier la réussite de le président de la République, le Euh, cette zone de Mbourkat Extension. À la suite de cette décision, le président a instruit les autorités compétentes et qui sont en train de mettre en œuvre le plan de régularisation. Et vous annoncez à la suite de cette décision euh, que cette zone a été déclassée. Et le déclassement redonne espoir à ces milliers d'habitants qui ont bien voulu soutenir le président de la République en lui offrant ici euh, plus de 1000 parrainages. Euh, je pense que c'est une décision euh, qui relève du social conformément à la politique du président de la République qui est aujourd'hui en train de redonner le sourire à des millions de Sénégalais. Vous dire aussi de soutenir en fait les collectifs parce que c'est une procédure, n'est-ce pas, qui est un peu complexe, mais une procédure que toute autorité compétente dans son domaine est en train n'est-ce pas, de fournir beaucoup d'efforts pour la réalisation, euh, n'est-ce de la volonté du président de la République. Euh, vous aussi demandez, vous de continuer à le président de la République pour une victoire éclatante euh, lors de l'élection du 24 février 2019 au premier tour. Je vous remercie. de rendre à César ce à César. Mhm. Je yooyu yaay ki nga xamante ne yaa fi teewal suñu président de la république Macky Sall. kon à tout seigneur maa ngi lay nuyu di la sant maa ngi ànd ak nag madame Nogay Diagne. sa xarit sa doomu mu nekk conseillère municipale. nekk aussi officier d'état civil. Mm-hmm. ma yàgg ànd ak moom nag di teer si ci biir waa Mbourkat ndax sa combat man dama ko defoon combat de principe ndax ay nit doo leen fekk ñu fàkk dëkkal seen njaboot du ci suturlu nga ñëw am yeneen idée mooy dàq leen fa ñu nekk pour def fa leneen loo xamante ne méngoowul ak li nga xamante ne sénégalais moom la war a am et droit dëkkuwaay droit la ni santé nekkee droit ni éducation nekkee droit ni leneen ak leneen ak leneen nekkee droit kon su ngeen fekkee fu bokk ci biir Thiès te ngeen di ay doomi Thiès fàkk fa dëkk man defe naa ne bu fekkee ne foofu dafa bokk ci biir Thiès waruñu ko nangu ci loxoy doomu cees teg ko ci beneen loxo doomu cees pour la fan la loolu tegu droit yi ngeen fi am moo ëpp sax li fi ñeneen am parce que yéen fàkk ngeen au moins viabiliser teg fi dara loo xamante ne nit ki bu ñuy teg ci loxo bëtam kon su président de la république ñëwee ne injustice ba mu am daf koy réparer ñun gëm nañ ko gëm nañu ko ndax mi ngi koy doxee gëm nañ ko ndax mi ngi joxe ay directives ndax ku nekk xam na ne suuf si compétence su ville la te seen maire Talla Sylla la euh, maa ngi leen di andil nuyoom te ci suba jokkoon nañu ma wax ko invitation bi mu ne il est de tout cœur ak yéen. te xeex bi mu daan xeex di leen fekk si daf koy continuer tey kon na seen xel daal ndax bu jógee ci président mu joxe ay directives defe naa ne le maire de la ville aussi am na ci solo torop ndax ay compétence am te defe naa ne dina ci taxaw ni mu ci war a taxawee. ndax ànd naa ak yéen ci xeex bi ni ma àndee woon ak yéen xeex bi bi ma nekkee maire commune d' arrondissement wu Thiès Ouest. ñu koy jooy ba léegi defe naa ne nag as suñ ko dénkee alali askan wi daf ko war a sàmm ba jóg fa man de kenn du ma jiñ meetaru suuf. amul amul kenn kenn du ma ne madame le maire mos naa jàkkaarloog benn fournisseur. mosul am parce que nag dama juddoo Thiès yaroo Thiès màggee Thiès sëy Thiès ba am fi ay sët kon ñooñu damay xàll yoon a rafet wu ñu war a aw macha parce que nag bu fekkoon ne am na dara lu takk ci man bi ma bàyyeekoo fi ma bàyyeekoo kon ba léegi takkal nañ ma ay kese mm. waaye kenn kenn laa wax je le dis haut kooku dafa ne extension de soleil man dama ne ba àddinay tukki ba ñuy wal buftu bi ba ñuy taxaw kenn du ma ne lii nga def ci mairie bi muy lu jaaduwul ndax nag dama waroon a relever defi jigéen ñi ndax je suis la seule et unique mère femme. macha kon bu jigéen yore dara te ñu xeex parité xeex ba egsi fii. jigéen war naa joxe exemple bu rafet ci ay moromu jigéenam loolu laa daan jëkk sàmm moo tax bi ngeen jógee di xeex ci mburkaat bi ma takk sama lafu sër ànd ak yéen di xeex te tey laa gën a ànd ak yéen ci xeex jërëjëf Charles nga baal ma ma tutoyé di jaar ci sa tur ndax leer na ma ni bu ma la mënta jurit mag naa la lu bari combat bi taxaw ci mhm. man de bala maa am jàmm dañ leen a jox seeni i lettre d'attribution ne leen kër yi yéen a ko moom seen i xel dal. macha loolu waay. tax nag ñu ngi dëkk waaye xel yi dalul. Mhm. ndax dama toog benn jour ñoom ñii ñu def délégation jàlloo ngi ne toog fekk ma sama kër mhm. na ma maire mun a ah, mun a ma croix nañu ay kër yu bari te ñu ngi toj mhm. ma ne toj kuy toj ñu ne ma Lopez mu nekk eaux et forêt ndax nee na forêt classée la téléphoné wu ma ko dama sol sama dàll fekk ko bureau ne ko problème na se règle pas comme ça bul toj këru kenn tant que procédure bi ñu commencé euh, eggul pourquoi ngay toj ban droit nga am ci fekk nit ku tabax suuf boo xamante ne suuf ñëpp la même bu fekkee ne domaine national la yow amoo compétence yu ñëw di ko toj te te te ñi nga xamante ne ñoo yor deman yooyu amuñu luñ fa def pour di ko toj il faut arrêter mu ne ma effectivement madame le maire je vais arrêter te defe naa ne boobu ngeen fi gëj a dégg toj kër ma leen di sant nag ndax combat bii ngeen di combat ku amul fit du ko def ku amul fit du ko def ku amul fulla du ko def ku amul fayda du ko def te continué leen ci lii ngeen nekke kenn du nangu suufu Thiès di ko ci doomu Thiès di ko joxaat beneen doomu Thiès maa ngi leen di gërëm di leen sant. man Diémé laa tudd euh, président collectif Mbour 4 extension. lan moo waraloon ndaje bi euh, li waraloon ndaje bi mooy dañu woon benn liggéey bu jégg dayoo. Euh, barkeel ñun barkeelu lañ koy wax ci parrainage yu Macky Sall yi. le président Macky Sall loolu moo waroon ñu woote woon ndaje bi. pour xamal na président de la république son excellence ah, Macky Sall ne ko ah ñun ñun ñi nga fekkoon foofu Mbour 4 extension ci KMS 3 bi ñun ñi nga waxoon la gouverneur boole naa leen nag gouverneur pour mu jox leen seen kayit lim ñu def mu rëy ci ñun trop lool lool lool lool lool lool noonu loolu taxoon timit ñu woote ndaje bi pour jox ko son directeur ah, de la solde Charles Émile Ciss pour mu jottali la ko mais waa Mbour 4 extension loolu moo nekkoon seen barkeelu barkeelu bi jottali la ko ah, Charles Ciss. ñaata pare ah, barkeelu nañ si 1000 te di ko xeeb 1000 lañ ko par lañ ci barkeelu ndax dañoo yéex dañoo yéex a jël initiative bi parce que ndaje moo xaw a jafe moo xaw jafe. loolu la. waaw fan ngeen toll si seen dossier bi lan moo yéexal këyit euh, yi. waaw dossier bi ñu sant yàlla bu baax parce que euh, bi ko président de la république Macky Sall waxee bool nañoo gouverneur jot nañoo ànd ak gouverneur ñu liggéey bi ñu ànd ak gouverneur liggéey gouverneur xamal nañu moom région bi la yor léegi département bi euh, préfet bi moo ko yor foo de Fall vraiment de passage ñu ngi koy remercier di ko sant ndax lépp lépp loo xam ne ni daf ñuy jëmale kanam moom mi ñu si doon jàppale mi ngi ñu teg ci yoon. vraiment mi ngi ñuy ci lool lenn rek lañ ciy xaw a mooy ah liggéey bi dafa xaw a yéex dafa xaw a yéex tuuti daal ndax trois mois la la gouverneur waxoon mais gis nañu léegi mi ngi bëgg a dem at loolu rek lañ ciy xaw a ñaawlu mais à part ça liggéey bi lépp rafet na. di prêter attention à opinion nationale bi di prêter attention le président de la république son excellence Macky Sall ne ko déclassement bi ah, ah, na na na na ci bàyyi xel lool lu bëri ndax fii am na ay lettre d'attribution yoo xam dañ ko defoon ci biir forêt classée bi te tey bu ko déclassé te defut benn point ci lettre d'attribution yi mooy ah, population bi ko karoon fële bi ko mobilisé zone population bi ko parneel population bi ko jàppaleel bu boobaa nañ nekk ci ay jafe bëgguwutoon bëggewu ko noonu moom jàmm la bëgg ci Sénégal jàmm la bëgg ci Afrique jàmm la bëgg ci àdduna bi parce que le président de la République son excellence Macky Sall noonu lay doxee looloo tax daal ñu bëgg a prêter attention dicté ñu ko mais dañuy dañuy prêter attention ci déclassement Mbourkat extension mu xam ne ni am na ay lettres d'attribution yoo xam ne ni dañ ko fee dugal avant. mu koy déclassé. est-ce que waxtaan waaw loolu wax nañ ci ay commission bi ñu demee xaw naa indi jaxasoo ak préfet ñun ak préfet ci commission bi parce que bi ñu waxtaanee euh, option yi préfet danañu euh, lettre d'attribution yi mooy mooy nekk ci kaw. te ñun lettre d'attribution yi nekk ci kaw mooy ñun dañuy nekk ci ay jafe-jafe loolu bu ñu sañoon daal en euh, préfet initiative boobu mu jël mu xoolaat ku baax néew ñu mu dind ko dicté ñu ko mais dañ koy ñaan mu. mu xoolaat ko bu baax ndax ñi fi dëkk ñun yàgg nañ fi trop trop yàgg nañ fi trop bu ñu sañoon lettre d'attribution yi dem deuxième position wala troisième position.